jàppale ñu bañ bokk ci jullit ñi nga xam ne dañuy am taxawaay ci kaw société biñ nekk ndax am taxawaay boobu li ci nekk ci aw yiw nekk ci ci ay ngëneel lu yaatu la te doomu aadama suñ borom jàppandilal na ko yépp ba mën a bokk ci ñooñu nga xam ne bu bokk ci ñooñu rek dafa am ku taxaw ci wetam doon ab noonam démb tey jii muy gën a feddali ak noonoom muy seytaane muy iblis fas ko yéene gàllankoor ba du bokk ci ñi nga xam ne dañuy taxaw taxawaay yu am solo yooyu yal nañu yàlla musal ci moom yàlla ñoo ngi làqutu ci sa ginnaaw ngir nga musal ñu ci suñu noon bu mag boobu nga ñu wax nañu moom dong mooy seenum noon yal nañ mucc ci moom mu mel ne suñu baaxu tey lu jiitu ñuy ñëw ci ndénkaan yi danañ ñëw ci niñ ko baaxoo defee am yuñ ko laytaayale mu nekk suñu introduction yooyu nga xam ne léeg mbokk yi nañu waaw góor waaye itam ñuy sëggal suñu doq rek di wàccee suñ bopp di wax ne am njàngat lañ ko tudde moo xam ne léeg-léeg mën naa jub léeg mën naa jubati waaye lu ci jub ñu sant ko suñ borom lu ci dëng ngeen jéggal ñu ko lu ci dëng rek ngeen jéggal ñu ko incha allah réew mi nag ñaare bu ñuy wax dañuy wax ñaari kilifa yoo xam ne kilifa gu ne wutal nañ ko aw tur kenn ki ñu ne ko kilifa diine daal wax ne kilifa àdduna walla ñu ne kilifa aada ak nuñ ko mën di wooyee waaye dafa mel ne buñ koy xool bu ñee kilifa àdduna aw wujjam moo war a doon kilifa ak àllaaxira ndax àdduna ak àllaaxira fi nekk waaye ginnaaw foofa du jub te xamuñu ku fay doon kilifa ku ko doonut léeg-léeg dañuy wax kilifa diine ba noppi wax kilifa aada wala kilifa àdduna daan kii nag mooy kilifa diine ji moom alaakulli leen yooyu yëpp mu ngi noonu su fekkee dañoo jël nag wàllu kilifteef gi di ko natt tey xool ki nga xam ne moom lañuy wax ne mooy kilifa àdduna te léeg-léeg mbubb mim sol ba tax ñi naan ko kilifa ak àdduna ñun ñoo ko ko solal boo jëlee ko ca gën a kawe ci ñiy yori poste ci paluk àdduna yi muy président bi jiite réew ma yépp day mel ne waa réew ma yépp ñooy dajale seeni doole jox ko ne ko dafa am luñ bëgg a def loo xam ne ñun mënuñ ko te ñun ñëpp mënuñ koo defandoo faaw ñu tànn kenn mu jiitu di ñu ko defal yow nag tànn nañ la kaay jiitu di ñu ko defal nga xam ne aw sas wu rëy la ndax liñ ko jox te soxla woon ko te ñépp soxla ko sas wi balañ cee ñëw dañuy xool ci yi nga xam ne moom lañ ko sant lan lañ ko jox ndax loolu dana tax mu mën ñu koo defal wala déet boo seetloo buñ ko ne yaay suñu njiit dañ koy wutal ak kër goo xam ne mooy dàq suñ kër yi gën beru suñ kër yi ñu waajal jumtukaay yem ci soxla yépp ne ko yow dëkkal fii ndax kat li nga ñu war a defal te mënuñ ko moo tax ñu bëgg laa ber ba nga dëkk yow dong ngir yi nga soxla yépp daje nga mën a wéet ba mën a xalaat ci lépp loo xam ne dinañu jëme kanam ne ko fii mooy sa kër ñu di ko wooyee pale wala nuñ ko mën di wooye ne ko saa yoo bëggee nelaw tëddal nelaw na sa xel dal ñun ñi dëkkee réew mi te fal la danañ tànn ci suñu biir ñoo xam ne ñenn ñi danañ taxaw ci sa bunt ñenn ñi ne ca mbedd ma ñenn ñi wër sa kër gi yépp di la wattu di la aar jàppal ne daal lu bàyyi ko wut ci sa borom moom du man ci yaw dara ñun danañ la aar suñ kemtulaayal kàttan ndax dañ laa tànn ngir nga war ñoo defal li ñu tële est kon aw sasa ngi noonu bi mu jógee ne damaa bëgg a dem dëkk sàngam ñu ne ko boo jógatee nañ ko teel a yëg bu ko defee ñun ñëppay wàcc tëli bi bàyyi la nga dem ci dëkk ba nga jëm ndax xam nañ ne boo dee dox yow doxoo sa soxlay bopp waaye ñun ngay doxali suñuy soxla moo tax bu jógee bay dem am oto bu jiitu wala moto bu jiitu taali làmpam pin pin pin loolu la muy tekki mooy wàcc leen tëli bi ki ngeen ne yéen a ko fal ngir mu war leen a defal li ngeen tëlee jiite leen ci seen mbiri àdduna yi ngeen di ko yónni yéen a ko yónni li tax ngeen di wàcc yi mooy yéen seen soxlay bopp ngeen di doxi moom nag soxla yi ñëpp bokk lay doxi kon may leen ko mu dem doxi ko te ñëw est-ce que may leen ko mu dem doxi ko te ñëw su ko defee ñu ne ko ñëwal ñun ñëpp wàcc tëli bi bàyyi ko mu dem waajalal ko jumtukaay yi mu soxla mu sañ a dogal saña fal sañ fole follee jël bépp jumtukaay boo xamante ne nii dana tax liñ ko sant jàppandi waaye nag day delluwaat baat bi ci liñ ko sant ma ne mbokk yi su fekkente ne ñun sañ nañoo tëdd nelaw booba sañ def yu baree bari moom yooyu sañatu ko kuñ ko fal ku ne ay mbokkam waroon koo wax ne ko massakon ak di ko yërëm fu mu toll mu war a comportement bu wuuteeg ñi di ko ñee nga xam ne wareesut di ko ñee waaye dañ koo wat di yërëm ndax responsabilité bu réy bi mu yenu te aw xeet tànn ko yan ko ko yan ko ko nag ci kanam boromam waaye nag mu war koo yenneeku ci àdduna war koo seede ëllëg ca kanam boroomam lim ci doon def bigam bi mu yor te saa yu ko siñee am ab famille lëm boo xam ne bëgg nañ lool ndax am na kum fal ca ñoom waaye am famille lëm boo xamante ne jaax na jaaxle nañ lool ndax am na kum folli ca ñoom ba muy fal aka a folli lan moo nekkoon lan moo lay taayoon fal gi lan moo lay taayoon foll gi ndax ci yaama neex rek la tegu ndax ci man-man la tegu ndax ci ko amal njariñ réew mi la tegu wala ndax ci e, mbiri boppam rek la tegu am njàng ngi noonu mu xóot mu jar a bàyyi xel moo xam ne ku ko bàyyi xel responsabilité loo ci yor mu doy ndax adduna daa yàggut te jamono ji nga ko yoree tiyaaba mën nga ko cee am waaye mën naa doon lu laxasu ci say tànk ba yeexal sa dox lool ëllëg yow mal xiyam yal nañu yàlla musal te musal kilifa yépp ci dox bu yeex ëllëg yowmal xiyam moom nag bi ñu ko tànnee ne ko kaay doxal lépp lu aju ci réew meeg yi nga xam ne moo ci aju danaan tànn ngeen ma waaye xam ngeen ne li ngeen ma sant kenn nit mënu ko kon damay wut ñu ma ci jàppale daal di am kum jël teg ko ci wetam ne ko yow yaay jëwrin ju mag gi ndax dañ ma wax ne ma naa toppatoo njàng mi wax ma ne ma naa toppatoo paj gi ne ma naa toppatoo mbay mi wax ma ne ma naa toppatoo naa toppatoo lépp loo xam ne dégg ngeen ko ci ministère rek bu fekkente ne baat ba tekkil nañ ñu ko bañ dégg ko ci olof daa war doon loo xam ne am réew dañ koo soxla war koo nose mu am kum tànn ne ko féete ma foofu kookee mu tànn ne ko féete ma ci loolu ngir di ma ko defal di ma ci dimbali te di ma wax fi nga ci toll moom itam bu ñëwee day tànn aw nit ne leen liñ ma sant xam ngeen ne kenn nit mënu ko yéen yéen a ma ciy jàppale daal wut ay directeur wut ñi nga xam ne ñoom lay wut ñëpp ñoo xam ne danañ aju ci service boobu nga xam ne moom la yor waaye ñoom ñëpp seen yëngutoog seenu dal lu war a jëmale réew mi kanam lay doon kenn ki di président mooy maanaam garab gu mag gi am ay bànqaas yu ca bàyyi koo mooy kuréel yi nga xam ne ñoo ëmb réew mi mu mel ne ñoom ñëpp bu kenn ku ne jàppee ne mission nga yor boo xam ne poste bi nga toog dafa jóge ci ay loxo dugg ci sa loxo te day génn ci say loxo bind fi saw tur da nga def loo xam ne danañ amal njariñ xeet wi ndax loolu la ca ne ca tiyaaba lu rëy la su ma koy misaal ci daara yonent yàlla Suleymaan keroog bi mu xëyee war a tukki ñu waajal ko volis yaag yi ca aju yépp mu war a yéeg ci ngelaw yi soldaar si war koo topp jinne yi war a màbbu délégation bu rëy war a ànd ak moom aw sànqaleñ boo ko doon misaal di baykat ba ca tool ya ne gaaw leen fatu ndax léegi tey président jaar fi te dana baare embouteillage bi ba ñun ñëpp mën nañ cee loro te kat du ko ci jublu waaye protocole am moo koy laaj <laughs> Souleymane suñ boroom dogal fa mu toog ca pale ba mu dégg la gaaya gën a tuuti ci ñoom yilif di sànqalee ñi ne ca ndànd foy foy ga di ko waxtaane la mu wax mooy suñ borom danga maa nattooti rek li ma defal lépp am nattu la di xool ba xam danaa sant wala duma sant mbokk mi yow mi dëkk ci koñ bi ñu fal la ab poste poste bi ñu la fal tax sa buntu kër gi am ku ci taxaw gàdduk fetal di la garde ngay nelaw ci biir waaye pal giñ ñu la pal tax boo ñëwee jub sa oto bi doo ubbi bunt bi day am ku la ko ubbil nga dugg mu tëj ko am ku topp sa ginnaaw fal gi la fal tax muy fomp sa dàll yi fal giñ ñu la fal sax sa tur dootu ci jaar fal giñ ñu la fal tax lenn lu ne koñ beeg ñi nga juddoo woon ak ni nga doon jàngandool ak ñi nga romb ci télé bi ñu wekkoo ay saag ak yor ay weer ak ñenn ñi sëñ bi di la ñaan ak yow soxla si tee nit ñi nelaw li waa ji tiim ci taabalam ji tanar caa yendu suba ba ngoon jot te du jar man nga koo fompoo yow sànni njëgga loolu ku ko xalaat danga naan lii de nattu la bu ma sama borom defal di xool ba xam ndax danaa sant wala duma sant wala bi lii dajee ci samay loxo dinaa góor góorlu wala duma góor góorlu wala daf may yóbbee ci ma gën a yëg sama bopp wala day tax ma jàpp ne ñii maa leen gën wala day tax ma jàpp ne sama ndeyeku liggéey ñoom seeni ndey liggéeyuñ wala day tax nga jàpp ni ñi ay bay la puudi lañ yoo xam ne jëmuñu fenn loolu am njàngat la moo xam ne ku yàlla teg xéewal ci ay loxoom war naa am lu mu yëg ci loolu war na ci am njàngat mu rëy moo xam ne moom la ci def bu loolu jàllee nag ba saytu dañuy saytu réew ma nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk te ñu dégg kilifa yi wax ne senegal ñëpp a ko bokk wala ñëpp a ci war a yem ñëpp a ko bokk gi moom bu ñu xool ndax am na ab laaj la ndax ñëpp a ci yemit ab laaj la keneen ki ñetteel ñaar ñooñu di njiit liñ tànn muy président ak ñi koy jàppale mooy citoyen bii dundu cim réew te moom nekkul ne dañ ko fal dara waaye nag ci réew mi la bokk ci réew mi la juddoo ne ñëpp ni nga xam ne noonu la fi président juddoo ak ña koy jàppale moom it noonu la fi juddoo noonu la fi màggee am fi ab carte d'identité këyit woo xam ne dañ ko ne ci nga bokk moom lan lan la am ci réew mi lu wuute ak li ñee am lan moo ko ci war mooy buñ góorloo ba taxawal ko dara mu bokk ci ñi koy sàmm ba du ko yàq maanaam su ma mënta defarub tëli ñi ma fal ma ne leen fexe leen bañ amub tëli ñu defal ma tëli bi sama buntu kër damay bokk ci ñi nga xam ne duñ yàq tëli boobu waaye dañ koy sàmm ngir mu gën a baax yooyu rek mooy sàmm li ñëpp bokk defoon naa ci aw waxtaan euh, bërki démb léegi nag ndax Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk ndax ñun ñëpp ñoo ci yem loolu dëgg la wala déet ndax ñun ñëpp ñoo yem ci wàllu faju ku xool danga naan réew mi moom ñëpp yë ñëpp yemuñu ci wàllu faju ndax ñoo ci bokk yam wala déet ku xool mën ngaa wax ni ñëpp bokkuñu ci yem am na koo xam ne bu si buroo ñëw ci barab bi muy fajoo mën naa rang suba ba ngoon jot kenn du ko xool waaye am koo xam ne ba mu yabalee yable rek la def wala mu bindu note rek mbir ya daal di demee nu kenn xamut loolu benn tomb la ci boo xam ne danañ ci mas a ñëw yaatal ko kon ñëpp yemuñu ci wàllu woowu buñ koy xool ñu xool ndax ñun ñëpp ñoo yem ci wàllu àtte ndax ñun ñëpp ñoo yem ci wàllu àtte boobu ci tomb yi gën a doy la cim réew te it nag bokk ci yi nga xam ne moo war a gën a tegu ci yoon bu fekkee bëgg nañu réew mooma jub réew mooma jëm fam jëm mooy wàllu àtte ndax su fekkee ay nit lañu jël jiital leen ne leen lu xew yéen xool leen li ci dëppoo ak li waa réew mi dëppoo ba tënk ko wax ne mooy constitution bi même su fekkee wuute na ak bi suñ borom digle waaye ay nit ñoo ca tënku ba tënku ko ba teg ko kum war a jaar ci sa kaw na jaar ci sa kaw waaye buñ seetloo ne ak làq am na ci nit mën a sàcc ñaari ginaar tëdd ci kaso juróomi at sax ne kenn atteeguma maa ngi fi tëdd ba tey nit mën a këpp kees génn ci mbedd mi nga xam ne bu ñu xoolee bu yàggutoo mbaay li nga fi dégg ci ñu tuumaaloon ay milliards waaye bañ ne bàyyi nañ leen bàyyi néggandiku xamagoo néggandiku ba ba kañ la jëm maanaam déggatoo lu ci jëm man nga koo lim ñi fi ñi fi bàyyi ay bàyyi néggandiku te mu jaare fa doon bàyyi gu wér maanaam gu law gu dem kenn xamul nan la demee te yooyu nag luñ di war di waxtaanee nit ñi la mooy tax ba nit du iñaane njiitam waaye bu loolu amul soxore sa njiit day am ndax doo yëgati ne njiit li daa jiitu ngir di la defal li nga tële waaye dangay ngay jàpp ne njiit li daa jiitu ngir am yum la ëpp ëppalee di ko noose ci sa kaw te loolu ku ne gis na ne tàmbali naa bari réew moo xam ne nit mën na fee rey nit waaye day ne ca mbedd ma ñu di ko dégg wala mu bokk ci ñu ñu tuumaal nit ba maanaam wax jooju mooy gën a maandu ñu ñu tuumaal reyug nit doo xam ba xam leer na ak leerut ba du leer ci sa bopp waa ji sàcc ay ginaar moom mën nañ koo tëj boo demee ci prison yi yàlla xam na ne sa yaram dina daw lool maa ngi masawu baax ña fa nekk ñëpp moo xam ña nga xam ne njuumtee leen fa dugal moo xam ñi nga xam ne ak tayee fa leen ca dugal ñaan suñ boroom jéggal leen njuumte la tayeef la lépp te teggi loxo bu diis boobu tegu seen kaw bañ ñëwaat bokk ci société bi danga fa gis ku baax koo xam ne boo ko gisee rek naw ko ci ak mbaax xëy na njuumtee ko fa dugal danga fa gis ku fa dugg ci ak tayeef waaye attee ngi noonu ku seetlu ne nit ki bi nga ko tëjee àqam yépp nga ko xañ àqam yépp nga ko xañ pine ko ci ruq ruq booba ruq bu ñu war a defaree ay jikkoom la waaye itam teg ko ci maandu baax na baax na lool ndax ñoo yem ci wàllu àtte bu fekkee Sénégal pour tous la ministre yi wax moom la njiit yi wax ne noonu la Sénégal demee ndax ñun ñëpp ñoo bokk yem ci Sénégal ginnaaw biñ ñee ñun ñëpp ñoo bokk Sénégal waaye mbokk yi ndax ñun ñëpp ñoo yem ci wàllu liggéey ndax ñun ñëpp ñoo yem ci wàllu liggéey ni nga xamante ne man de danaa jàng am samay diplôme lool waaye xëy na njiit liy jëliyaate moom du sama mbokk sama nijaay xamu ko sama tonton xamu ko moo tax man barabu liggéeyukaay boobu moom bay bon ma génnee ci sama xel ndax mérite du ma fa tax a dugg waaye ay lijjantee ma fay tax a dugg kon bu boobaa xanaa yematuñ ci wàllu liggéey ndax li ma jot a am ci liggéey ñi ngi ma koy sàmmal ni ñu ma ko war a sàmmale su fekkee baykat laa su fekkee ab sàmmkat laa su fekkee kuy jaay laa ci koñ bi nga ñëw ànd ak say ma ñu ñëw taxaw wala say policier wala wala baat yooyu mën naa koy jaawale jël koo xam ne ab sàndarma la ma wooye ko policier wala nangam ndax xàmmeeguma leen ànd ak ñoom ñu ñëw ne ma war ngaa fay quarante mille yoo xam ne ci maire bi nga ko waroon a fay patente la fayoo ko kon wàcceel say bunt dangay tëj buub sama bagage yi dugal ci biir yokkal ma beneen kànnaar ne ma feek fayoo doo tijji nga xam ne boo koy xool da nga naan waaw góor ndax kat yéen yéen a ngi liggéey bëgg ngeen waa ji di joxe dara ci goxam bi muy liggéeyee waaye nga gis ku ko ëppale fuuf lu mu indi maanaam mën naa indi ay conteneurs yu bari waaye ba mu waree fay ca duwaan ba la waroon a fay fayu ko la waroon a fay ci lépp lu mu mën di doon lu ne fayu ko waaye nag dañuy bàyyi bàyyi mu jàll. kii nag moom kenn du ko baal dara ndax néew ji doole la neexaleel wala doo fi jóge te gis naa ne yooyu yëpp buñ tegoon àtte ci yoon suñu réew bokk ci réew yi nga xam ne moo gën a développé waaye buñ ko tegut ci yoon dañuy daal di bokk ci ñi nga xam ne ay tooñkat la ñu doon te yàlla nee na tooñkat yi du jubal seeni pexe mukk ku yaakaar ne da nga tooñ ba noppi jëm ca kanam doo dem waaye itam yéefar yi itam du ma jubal seeni pexe te ñàkk àtte àtte bu jub ak kéefar la faasixuuna yi muy kàccoor yi jaayaate doole du ma jubal seeni fexe te ñàkk àtte àtte bu maandut mbirum kàccoor la kon bu boobaa yem ci wàllu àtte lu jara bàyyi xel la ñu door a wax ne Sénégal ñun ñëpp ñoo ci yem ndax ñun ñëpp ñoo yem ci wàllu liggéey wax naa ko léegi nag ndax ñun ñëpp ñoo yem ci wàllu njàng ndax ñun ñëpp ñoo yem ci wàllu njàng njàng dafa nekk lu am solo loo xam ne boo xëyee suba teel ba gis gone yi di jàngi sa yaram wi day daw ba gone yi génn ci tëli bi masha allahu di jàngi sa yaram wi day daw ci ni parents yi bëgg seen doom yi jàng nga xam ne da gis koo xam ne dana sang doomam ba mu set solal ko ndeysaan léeg mu wékkal ko bito wékkal ko saak solal ko dàll yu rafet moo xam am na ko moo xam amu ko soppil ko ak xetam moo xam man na ko moo xam mënu ko ne ko ay ca daal koy yóbbu jox ko aw nit ni leen jàngalal leen ñu ko lan lañ koy jàngal ndax njàng moomu ñun ñëpp ñoo ci yem wala déet ki nga xam ne moo taamu ne day yóbbu doomam ci école bi ci koñ bi te état tabax ko fi ne ko kaay jàng mu ñëw di jàng si moom xëy na du fay dara day ñëw rek jàng am koo xam ne dane man sama doom de leneen laa bëgg mu jàng ko dama bëgg mu jàng alxuraan damaa bëgg mu jàng arab damaa bëgg mu jàng damaa bëgg mu jàng ndax ñaari njàng yooyu ñoo yem même luñ ko àttee màndaxe ko wala déet dafa mel ni yemut même su fekkee wax nañ ni réew mi nekk du réew moo xam ne dañ lislaam moo koy àtte waaye bu ko lislaam àtte wut baat yañ wax ne mooy àtte réew ma du baatu jëlal bii teg ko ci kaw bii xanaa wala loolu bu ñu ko tegee ñu war koo bañ gannaaw ñun lislaam attewul réew mi waaye nag jullit yaa ngi ci réew mi te war nañoo mën a sedd séddale bu yamoo boo xamante ne kenn ku nekk dana ci gis boppam waaye nag faste say loxo cim réew mel ni dara xewut ca la fay xew day tax góom ba day wunni ba àgg foo xam ne faj ko day mujj jafe mbokk yi bu ñu seetloo kon réew mi di ko xool ndax ñun ñëpp ñoo yem ci réew mi ay laaj yu baree bari la yoo xam ne mënees na koo laaj mën ngaa wax ne ñoo yem ci lii ñoo yem ci lii ndax ñoo yem ci lii ndax yemuñu ci lii laaj yoo xamante ne ngir nga tontu ko sa bopp dana mujj doon loo xam ne lu jafe-jafe lay doon waaye ala kulli bi loolu lépp amee ba jàll nag nit ki moom day yëg ne fépp fu mën a nekk ci àdduna dafa am lum fi wut si àdduna kenn ñëw fi ndax capp-cappal rek dem déedéet ku ko jàpp yaa ko jàppe noonu waaye suñ borom ni mu euh, tërale àdduna ëpp na loolu ni mu tërale àdduna ëpp na loolu boo boobaa missionnaire lay doon fi ko fal muy ab postam day yëg ne taw féex la ju suñ borom def ci mu mën faa am tiyaaba waaye nattu la bu suñ borom teg ci moom boo xamante ne nii mën na faa jaare def ci njuumte yu rëy yoo xam ne yal nañu yàlla musal ci njuumte yooyu ñoo ngi jégg lu baax a baax nag loolu mooy li nga xam ne rek bëggoon nañ koo def am njàngat jiital ko ci jotaay bi leneen li ci topp di suñu ndénkaane bi ñu indi te yonent bi alayhi salaatu wasalaam dénkaane woon ko muy suñu ndénkaane Euh, fukkeel ak ñeent saxaaba bu ñuy wax anas ibnu malik radiallahu anhu moo ko nettali wax ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko doon wax faatima radiallahu anha doomam la yonent bi sallallahu alayhi wa mel ne danaan lu tax du ngeen dégg li ma leen di dénk li ma leen di wax daal mooy ndénkaane bu am solo la nee na soo xëyee suba ak bu ngoon jotee maanaam suba ak ngoon del wax baat yi dee ko wax suba ak ngoon baat yi may bëgg a wax baat yooyu mooy lan mooy del wax yaa xayyu yaa xayuumu bi raxmatika astaxiisu aslix lii sahnii kullahu wala takilnii ilaa nafsi tarfata ayn est-ce que na nga di ko wax suba ak ngoon amut ab lim bu ma ci joxe waaye daal boo yewwoo wax ko bala ngaa tëdd wax ko xanaa noonu rek mën naa baax ma baamtuwaatal la ko dafa wax ne yaa xayyu yaa xayoomu bul wax xayul xayoom déedéet yaa xayyu yaa xayoomu bi raxmatika astaxiisu aslix li sahni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata ayni loolu mooy ndénkaane bi nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam indil ñu tey ci suñ jotaay bii di almisbaax mooy jaam bi day wax bu xëyee ne yàlla yow mi nga xam ne yaay aji dund ji yow mi nga xam ne yaa fiy sax ba faw sa yërmande laay sàkku ndeysaan maa ngi yalwaan sa yërmande di la ko dagaan maa ngi lay ñaan nga yéwénalal ma sama mbir yépp nga defal ma sama mbir yépp doon mbir yu jub mbir yu baax maa ngi lay ñaan bul teg ci sama bakkan bul ma teg loo xam ne daf may sonal waaw bul ma teg stress stressé naa trop léeg-léeg nga nit dégg nit wax ko wala nga gis ku toog ne xujju rek nga xam ne kii jëmm ma fi nekk waaye am xelam nekkatu fi ndax problème yu bari yi ñaan bokk na ci li koy teggi waaye nag duñ ñaanta yam ci dañuy ñaanta xëy liggéey nee naa ñaankat yi bari yi xew ci dëkk bi ak nangam day taxa am nangam ji daa bokk ci yi nga xam ne day indi pauvre cim réew waaw nit dangay xëy liggéey yi ba noppi di ñaanlu waaye nag jàpp ne lu ne mën nga koo am te ci ñaanlu dong laa koy amee daa bokk ci yi nga xamante ne du développé am réew waaw ñi raw ci àdduna si de rawewuñ ci ci dem di ñaan lu ji rek jullit nag suñ boroom nee na ko del ñaan sa borom waaye nag nañuy ñaan tey xëy baax na ci trop wax naa la ko léegi an anas ibnu malik radiallahu anhu xaal xaala rasulullahi salallahu alayhi wa sallam li fatima radiallahu anha maa yamnauki an tasmacii maa uusiki bi an taqulii isaa asbaxta wa isaa amsayta yaa xayu yaa xayuumu biraxmatika astaxiisu aslix lii saxnii kullahu wala takilni ila nafsi tarfata ayni ma baamul la ko benn yoon ñu door a tëj ndax xëy na mu rëcc la ñu waaj tuuti <laughs> dangay wax suba ak ngoon ñaan gi wax naa la ne lim bi amu ci solo lool bu la neexee def benn bu la neexee def ñaar bu la neexee def mu ëpp ko loo ci tàmbali lim bi la ca gën rek na sax suba ak ngoon yaa xayu yaa xayuumu bi raxmatika astaxiisu aslix lii sahni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata ayn yal nañu yàlla boole sàmm yal nañu yàlla boole taxaw defal ñu suñu mbir yépp jub comme niñ ko ñaanee ci ñaan gi waaye itam musal ñu ci lépp loo xam ne lu diis ci bakkan la tegu ci ndoddu nit ba dox digganteem ak boroomam dox digganteem ak àdduna ñaar yooyu yëpp ay fitna la moo xam fitna ju bàyyikoo ci njaboot la moo xam fitna ju bàyyikoo ci mbedd mi la moo xam fitna ñu bàyyikoo ci àdduna ak na mu sutante wu soogi ñaagaan wi mu amee la ñoo ngi jéggulwaat doomi soxna yëpp te di leen baalu àq bu baax a baax ci waxtaan wi lu ci jub ci baaxu suñ borom rek la jubee ñoo ngi ko ciy sant bu baax a baax xataa yar la lu ci dëng itam ñoo ngi koy jégg lu baax te di ko jéggalu soppe yi bàyyi xel jotaay bi yëpp ñaan suñ borom mu boole ñu jéggal Oustaz Alioune Sall yi nii di egg si moom la ñu bàyyee toogu bi mu ànd ak ñun ci waxtaani fajar yi ñu ànd ñun ñëpp déglu ko ñaan suñu borom subhaanahu wa taala mu sàmm ko te sàmm ñu ñaan ko mu defal ñu jàmmi àdduna te defal ñu jàmmi alaxira seen mbokk Mbàkke si la ngeen àndaloon ci seen jotaay bii di almisbaax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.